suñu sukkandikoo si li nga xamante ni maire Amadou Diarra mi ngi koy def tey fii ñu taxaw ak li yeneen maire yi def ak accompagnement autorité administrative yi suñu sukkandikoo si protocole de sécurité sanitaire bi mën nañ ni li nga xamante ni dañ ko yittewoo woon muy ay ay jumtuwaay pour tàmbali njàngale mi lépp teew na en terme de thermoflage en terme de préparation des salles en terme de désinfection en terme de mobilisation des enseignants parce que fi ne nii même ñu tukki woon muy élève di jàngalekat ñëpp ñëpp ñibbisi nañu même euh, ñu bëgg changer doxalin fi mu ni nii classe yi doon jël xale yu bari dootul weesu ñaar fukki gone par classe jàngalekat yi aussi ku duggul ci classe dinga dinga di nga di saytu xale yi di nga leen gunge di nga leen surveiller di nga fexe ñuy ñuy ñuy ñuy sorante du ñu nuyoonte di raxas loxo yi lu bari di di laal gel di ñu leen di kii ku ku si am aussi jafe-jafe am na benn euh, espace bu ñu aménagé wax ñu ñu tiit loolu leen waxuñu ñu stigmatiser leen waxuñu ñu kii leen parce que fi ne nii dafa nekk un combat communautaire parce que comme on dit borom moo feebar bi dafa ñëw si communauté bi kon véritablement il faut que communauté wu pour ñu mën koo xeex ba tax na cellule dinañ ko taxawal yaatal ko képp ko si mën a jàpp mu jàpp si ku ñu yaakaar ni nag parce que feebar bi jombul kenn dal na borom barke dal na ku nekk ku ñu yaakaar ni am nga feebar bi am na espace boo xamante ni ci sutura dinañ la fa dugal saytu la ak waa kër docteur su fekkee da nga am doomu jàngoro bi ñu yóbbu la fi nga xamante ni fa leen lañ la taxawoo su fekkee amoo ko nga delluwaat aussi euh, comment dirais-je gunge sa morom yi